defe naa tey ñu ngi Parcelles Assainies unité 15 kër Saa Touba Saa Touba mu Serigne Touba Saa Touba mu Serigne Saliou ah comme ni ko ñëpp xamee bi ñëwee nag fekk nañ fi waa lamb yëpp ndax mbër yaa ngi fi presse bi ouvrir lamb ñu ngi fi ñëpp a ngi fi tey Saa Touba euh, baal ñu àq si weeru koor bi waaw ansu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñu ngi santaat Serigne Saliou bu baax di santaat Serigne Saliou bu baax di santaat Serigne Saliou Mbacke bu baax a a baax wax yàlla di am contentement bu baax ci seen teewaay fii ndax man lii daf ma daf maa sax dépassé wër na Cheikhul Khadim ndax barki démb ci guddi laa toog rek sama xel dem ci ne daaw defoon naa ay ndogu ren war naa ko mën a defaat daaw maa ngi ko defoon gàlle muutloo ren mu fekk ma fii intégens ma nekk sama kër ma ne naa ko fi defee wax dëgg yàlla waa kër gi ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi sama xol sedd trop vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax daal alhamdulilah bi ma ñëwee laaj naa ñu bëri fii jël naa fi ay mbër ay ba sa tëb tëkkër boobu ay dara ak ñu bare bare bëri mais ñëpp témoignage bi benn la maanaam li la lii ak ñoom la ñu wax sa mbaaxaay jàppale boo leen di jàppale ci liggéey liggéey parce que ku xam ne tamit yàlla dafa la dimbali ci wàllum ñaan nga di ci liggéey euh, paas luwee sées waaye doomu aadama kenn mënu leen a luwee tey ay dara mi war a sëñ Tuubaa ñëw ngi ñëw fii sax wallaahi laazim daf ma jëlee kaw dama jékki-jékki rek mu woo ma di ma laaj fan laay ñëw ma tegtal ko dama jékki-jékki gis ko ci buntu kër gi moom sama frère la parce ànduñu ci lu dul dëgg nag ndax man yéen li ngeen may xam lépp yaakaar naa bokk naa ci mara yi nga xamante ni tey kenn mësul jël vidéo di ma yóbbu vaar parce que chaque jour dama leen koy faral di wax yàlla moo mën a wane lu weex ba ñëpp gis ko mu def ko mu ñuul ko laay fi mu daan def ci temps yi mass yeeg làmb yeeg yooyu yëpp dama ci daan dugg ñu ngi nii mais yaakaar naa nit mësuma ci wax loolu ma warut wax wala ma def ci lu ma warut def ndax lépp rek damay jiital yàlla suñu borom bi donte suñu borom am na lu ñu may waaye seeni nit ñuy gis ay preuve ñu ci am ay résultats yoo xamante ni tey mi ngi law ñoom ñëpp ñu koy ñu ciy jot kon tey loolu dañuy sant yàlla mënuñu yàlla rek la ndax lu waay def mu sotti yàlla la neex dañ ciy santaat yàlla bu baax a baax di kontaan ci seen teewaay fii gis nga ñoon góor a soog garga dë gaa yëpp daam seen ñëpp ñëw nañ ñëpp Modou Baye Fall gaa yëpp ñëw nañ barki Seexul Xadim Ibulaay ñëw fi indi fi ay teraanga lu ne mu defal ma ko xam nga ñun Modou Anta Modou Anta itam sonn ci bis bi jël alalam def ko ci wallaahi la tey bis bi mun naa ne li mu ci def lépp sax mënu ma ko wax barke alxuraan comme si na moom moom bis bi bisam la ba pare te nangu ci feeñ maa ngi koy sant bu baax a baax xaadim anta mi moom it gis nga ko tey bis bi moo tax mu dagg yitteem yëpp ñëw jël ay teraangaam def ko ci Mamadou Khadim Anta Seck non bagage yi nga xam ne moo dem ci waañ bi yëpp moo ko jënd ah. wallaahi la azim man du ma waxal nit loo xam ne defalu ma ko ah, defal na may teraanga Modou Baye Fall defal may teraanga di sant itam maire kenn maire kenn moom it wax dëgg yàlla tey mu jàpp nañ ci bu baax a baax te te ñooñu ñëpp lu ma ko ci kenn dañoo dañoo dégg ne saa Touba mooy def ay ndogu tey rek kenn bu nekk di am loo ciy dugal diaspora bi ñëpp na sama nit yëpp ay jaw fara ñëpp rek bàyyi ma kenn wax dëgg yàlla samay nit yi bopp ngi foofu Abdou Seck wallahi lazim di santaat bu baax a baax a baax a baax Laye Africa maa ngi koy sant bu baax a baax Laye Africa ay nday eh, Aydara maa ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla gars yi jàpp nañ ci bu baax a baax dépense bi ci dem bari na xanaa xaalis bi waaw non du ñun duñu xool lu bari ndax suñu diggante ak Serigne Saliou ak suñu diggante ak suñu borom lépp luñ ciy def rek maam du bëri ci ñun bu doon milliards yi dañu koy ci dañ ko ciy def parce que gëm nañ dañoo gëm ci def lu ne dañuy amaat lu ko raw ndax heure daaw nekkuñu woon fii waaw kon tey am na loo xamante sant la waaw heure bi daaw ci kër jàmbur lañ ko doon defee tey ñu defee ko suñu kër waaw loolu koy sant yàlla ko defoon këram daaw muy Modou Lo coow bëri na sa diggante ak moom sa loo noo ko gisee affaire bi daa a lan la waaw xam nga Modou xam nga Modou nag moom la yàlla bindee noonu dafa rampee ba jot yëf yi mbir mi nag képp ku ko yor coow bëri ci nag xoolal parce que moom la ñëpp bëgg a bëreel kenn ku ne tey bëgg nga moom Modou fii bi mu tollee fii Ama Baldé toll ak Boy Niang ku yor couronne bi rek yow la bëggoon a bëreel ba mu des Yékini rek la musul woon bëgg a bëreel mais ku dul Yékini couronne bi nekk say loxo rek moo du bëgg naa bëri yow looloo tax mu jóge ci Balla ngay ñëw jëlee ma Sène direct moom mi yor couronne jël couronne bi ci ay loxo kon tey force force ba ci laa la wax mbooleem kuy takk ngemb ci lamb ji sa bët bépp yaa ngi ko teg ci li mu yor ci loxoom kon faaw coow bëri mënul ñàkk est-ce que mu jël nii dina ko arranger ah mais loolu yëpp du dara yooyu yëpp tey yàlla rek moo xam est-ce que ma dégg dañ koy ñaanal yàlla rek yan bi oyof ci kawam di ñaanal mbër itam ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk tey li nga bëgg si àdduna yaa ko xam yàlla defal la ko di ñaan yàlla daal kombaay yi bu mu ci mën di doon yàlla na am rek. Balla Gaye de lu ngeen seq. dañoo bokk Serigne Touba. da nga koy ñaanal ci ay bésam. dañoo bokk Serigne Touba daal ndax da nga koy ñaanal ci ay bésam. waa déggoo li ma xanaa ma la dañoo bokk Serigne Touba. man ak Balla Gaye 2 loolu kay jeex na nit kay bu ngeen bokkee suñ tubaab mën ngeen a seqalu ne. dama dégg Papis général ci ay waxtaanam maa koy nuyu di ko ziar Papis sam waa ji ci combat Eumeu Sène Balla ñu laaj ko ci mu ne Balla moom maanaam fi mu nekk nii ci ni mu waxee làmb war na ko ginnaaw maanaam ci lamb nekk nii moom mënu maanaam daal affaire yi biddiwam dafa mel ni dafa fay na dem jàppale Sa Thiès. man wax dëgg yàlla yàlla dafa ma bindee benn affaire Papis général loolu gis-gisam la wax yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér-gu-yaram ci gis-gisam fi lay waxee ak fi xam-xamam toll kenn ku nekk mais it yàlla sunu borom bi moom li may wax rek chaque jour day wane lu weex ba nga gis ko mu def ko mu ñuul ndax dégg nga ma dina def lu weex ba ñëpp gis ko mu def mu ñuul kuk ndax nga ma day xiin bañ ne day taw ta du taw nga jekk-jekk muy taw te xiinul tax yàlla suñu borom bi kenn mënu ko natt fenn a fi ne hmm. buñ di wax ci lu ñëwagul. mais combat boobu yëg nga ko Balla ak ko noonu loo gis. waaw yëg naa ko ñaari ndaanaan ñaari champion la gis keroog bi ñu toogee yow noonu la gisee ci damaa gis ñaar ñu maam ñaar ñu dal ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk am na cër boo jox sa morom am na looy ruusee sa morom. Hmm. waaye duñu ruusante ci biir géew. Hmm. mais mbirum baatin mën na def différence su waaw lamb nag moom dafa dafa xaw a doy waar. parce waaw lamb dafa xaw a doy waar mais maa ngi lay xamal daal ne la yàlla nañ ko bëre ci jàmm ak salaam rek bañ yegg ca bis ba. Hmm. waaw après la fooy taxaw bu keroogee. waaw bis bu ñu yeggee ci bis ba rek danañ xam fu ñuy taxaw. nekk lu ma fi benn mbër mbër bu ma fay ma liggéeyal la. Hmm. barke Serigne Saliou. bu Balla Gaye ñëwee. maa ngi lay waatal Serigne Saliou Mbacké. bis boobu mbër boo ci gis ma ànd ak moom ci kàttanu yàlla yonent bi xamal na mooy am ndam incha allah. nga ma maa ko wax. Balla Eumeu Sène koo ci àndal mooy am ndam. déggoo ma de yàlla nañ ci yàlla jóg ba jàmm ba bis bi rek. saa lii da ngay jaayu la wala loo lu ne ci yow la wala kees ce qu'il yow xam nga man du ma ragal man Serigne Saliou rek laa gëm làmb dama ko mën sama empreinte dama ko marqué ci làmb doonul loo xam ne lu may ñëw di triser la wala dara déedéet lu ma ñëw la suñu borom am lu ma ci may ma di ko wane nit ñi di gis te taxul ma reculer chaque presque chaque làmb ngeen gis moom ma ñëw indi mbër. waaw li kon jeex na. mais nga ne Balla ak seen bis boobu waat nga ne koo ci àndal mooy am na. ci kàttanu yàlla ak yonent bi. foo ko teg. ci may yàlla suñu borom rek. li Salick wax daa doy waar te kawe ci may yàlla suñu borom bi te daf ci am mbër boo xam ne dama am lu dama am lu ma xam ci moom lu bari ci ñoom hmm. ay caaxaan saa da nappe wala da ngay. xam ñaari mbër yëpp yàlla dogal na. Hmm. kenn ki moom muy Balla Gaye. Hmm. bëre na ak ñun ñaari yoon. muuru deux waaw daan ñu ñaari yoon. kenn ki ñu bëreeg moom ñaari yoon daan ko ñaari yoon. Hmm. te ki ki nga xam ne ñun ñoo ko daan ñaari yoon daan na Balla ñaari yoon. ndax dégg nga ma foofu yàlla moo doon wane boppam foofu. gis nga làmb ji. dama la wax benn affaire kenn mënu kenn ku yàlla dimbale rek a fi ne. ndax dégg nga baax na. mbëri gis nga ni baaraam yi sutante noonu la seen wërsëg yi sutante noonu la seen sens yi wutee diggante Balla Gaye ak Eumeu Sène ak Balla Gaye Modou Lo ak ku ci dajeeg sa morom des fois da ngay toll ci guddi yoo xamante ni sa biddiw day gën a leer sa biddiw morom ñaanal la mooy gën a yomb ñaanal ki ndax dégg nga bu li ma wax nii da ngay bokk ak nit ndey ak baay ngeen nekk ci kër gi mu mujj judd ba pare yor kër gi ko kër gi ci loxoom lay dem te moo mujj judd noonu la demee nag ci làmb nit da lay mën junni yoon ñëw nga daan yóbbu ko foo xalaat ne fa lay leere ki ah, wax nga ko bu yàgg. Ah, parce que itam du ñu tëb tëb dugg ci dara nag moo wax la ko tey ñun lépp lu ñu dugg lu ne danañ ko xool bu baax. waaw ko xool bu baax and ceeg yow nag xanaa nga dëgër bopp ama ah, mbëri nag daal mbëri dëgër bopp léeg-léeg nga wax ci mbër dara ba bara mu dem jël yoonu bopp waaye mbër yi may ngemb ñi ngi may dégg bu ci benn mbër bu mu ci musee wax ak benn mbër wax la ngemb la ci combat ba pare wax la lamb ji te waxuma la lamb ji nu muy demee na ko wax na nga def sorti wax ko loolu leer na nañ saa kontaan naa ci yow. maa gën a kontaan Babacar ndox dëgg yàlla ndax xam nga yéen moom da garaaw waaye waruma woon wax sax ci làmb tey mais journaliste moom boo toog ak ñoom daa mel ne am lu takk faaw ñu dugal la ci làmb quoi <laughs> mais sant yàlla te di leen ñaanal yàlla rek ngeen dem ba am seen i bopp dem am seen télé bopp yàlla mën na ko yàlla leen ko yàlla defal ndax ñu baax ngeen te yéen da ngeen di defar rek. dëgg yàlla ngeen xool lu baax ngeen di ko def di xool ñoo xamante ni tey xam nga seen diggante kiiwul ngeen fexe ba mu ratax ndax des fois ma gis ngeen jël ñaari nit ñu doon coow yóbbu ko ci genn kilifa ñu toog ñu jubale leen seq ak ñoom ay teraanga xam loolu jullit moo koy def am na ci ñoo xam ne nag dañuy féewale rek waaw am na ci ñoo xam ne dañuy féewale rek mais daal nañu xam ne adduna yàlla moo ko moom dañuy rafetal xol yi te bëggante te soppante te wóolante te kenn ku nekk li nga yéene sa morom na nga ko yéene sa mbokk jullit mbokk taalibe ndax yàlla suñu borom bi kenn du moom barke alxuraanu karim maa ngi baal ñëpp àq tey baalu ñëpp àq mboolem axlu làmb nag mboolem axlu làmb maa ngi baalu ñëpp àq ndax des fois ma ma ñëw ci làmb amaana ñu gis ma ànd ak beneen mbër ñaa ànd ak mbër boobu du leen neex te amaana dañ may bëgg sax waaye ñu ma gisee rek du leen neex mais dama leen koy jéggul te nga xam ne sama liggéey rek laa yor ku ci yoroon sa place atelier tey doon menuisier métallique wala dara doo taamu koy ñaanal ko koy liggéey la ko dul liggéey man itam métier ma yor noonu la demee demu ma fekk benn mbër waaye mbër bu ma wóolu ba ñëw liggéey ak man dama lay liggéeyal ndax dégg nga bu li ma wax nii kon am na ci loo xamante nii man doonul loo xam ne man maa ko kii sama bopp maa ko incarné sama bopp déedéet incarné ma sama bopp dogalu suñu borom la li nga xam ne moom laay mujjee mooy damay am ku may sant koo xamante nii doonul loo xamante lu may waxantu ne la sama biir xol la muy góor a soog Babacar Gorzoog fii laa toog ci sama salle bi ay nit di waxtaan ak moom ci wàllu social bu jëm ci prison bi bi ñu waxtaan ak ñoom ba pare góor soog na leen am naa sama benn waaye joo xam ne gis naa ko muy def lu baax kaa leen ñu dem ci moom ci lañ solee seen dàll ñëw ci man te Babacar képp ku lay jëmale ci yoonu yàlla kooku jullit àqan la kooku ku la yéene la kaa ñu def lu baax képp ku la ko wax kooku ku la yéene la bi mu ñëwee wax ma ko fii affaire yi daf ma marqué ma ne leen bu soobee yàlla suba na ngeen ñëw lépp lu ci war te man mën ko dinaa ko def ci laa woo ku ñuy wax ay séddiko ci digg ci guddi gi paas ko ko téléphone ay sa jëndal leen mat matelas ma xëy ba set dem jënd ay setala ñi nga xam ne moom laa moom laa yaakaar yëpp ay ay ay siwo ay ay omo ay saabu yi nga xam ne moom la ñuy soxla foofu ay meew ay xasida lépp ma ñëw teg ko fii woo ko mu ñëw jël si ma ànd ak ñoom xëy jël sama oto jox leen na leen dem ñoo àndaat ak ñoom dem yóbbu ko campénal maa ngi lancé appel ci autorité yi nañu gestu ñu ne ci prison yi beneen bi ci topp Babacar barki Serigne Saliou Mbacké billaahi lazi laa ilaaha illallah prison bi dafa metti Babacar sama yaram dafa daw démb ab imam moo jënd jàkkaarloo ñun nii jëxran li muy waxtaan ak ñun lim ñu njëkk wax te dëggum naa juróom-ñetti at la wax ci kaso bi ci imaam yorom njaboot juróom-ñetti at laa la wax juróom-ñetti at moom la tëddugum ci kaso bi la wax xam nga loolu metti na dese fa ay at beneen imaam bi jënd na moom tëddugum na juróom-ñeenti at. te gis naa foo ku tëdd fukki at ak juróom-ñaar réew mi waruñ fee tëj nit loo xamante ni koo xamante ni tey jëlut ay bakkan wala mu def loo xamante ni tey dañu xam ne kii dafa doon koo xamante ni lii muy def nii da cee sax di ko def di ko defaat. parce que tey am na ñu ñu gën a fonk loi fop te da nga nit dana rey nit sax te teyu ko sax te wallaahi la azim te du tëdd yenn tëdd yi. ñu jox ko avertissement ba mu defaat ko eh, da ngay dem ci kaso yi ay sambur yoo xamante ne ay plus de deux cent personnes di ci fanaan trois cent personnes nit ñi di fa feebare ba di fa ñàkk seen bakkan nit ñi di fa dee état bi nañ xoolaat bu baax a baax di tëj nit ngir gu dund loolu amul fenn ci àddina ñu xool cinq ans sax dafa bëri ci doomu aadama parce que képp koo bëgg a jubbante bi wallaahi la azim juróomi at foo ko ko tëj doomu aadama boo ko tëj bu bëggee baax bu jénnee dana baax ndax juróomi at dafa doy doy na ci kaso xoolal gis naa koo xam ne vingt trois ans la fa tëdd door a jénn xoolal loolu dañuy jénn sax doonuñu xàmmee Ndakaaru seen kër sax doonuñu xam fu mu féete dañu xoolaat bu baax justice yi dañu xoolaat li ñuy àtte te xam ne yamal xiyam am na de yan yi dafa metti barki Seydina Mohamed billaahi wallaahi taalaay ku dem cent mètres wala nga dem camp pénal wala nga dem Koutal da nga xam ne metti na prisonniers yi ñooy nettali li ñuy dund foofu ñi nga xam ne ñoo nekkoon Koutal ñoo ñu doon expliquer nii dañu wax carrément café Touba sax pour buñ ko daan naan maanaam ñi segg ba pare lañuy la ñuy ñaan seggit bi pour seggaat ko ñoom xoolal lu ko gën a metti du ñu lekk lu neex duñ fa jógee di feebar di dund lu ne te ba pare billaahi wallaahi tàllaahi góor a soog ma na ma seere ñi ñu àndaloon ñëpp dem foofu noonu ca programme bi yóbbu social bi ñu jënd ci prison bi ñoom ñëpp a wàcc alxuraan te ci prison bi lañ ko jàngee xam nga ne kooku tey ñu ngi fay dund yàlla suñu borom bi waaye nañ leen di dimbale ñi nga xam ne ñu ngi leen fa denc fàtte leen am na ñoo xam ne defuñu dara dañ leen tuumaal kese ñu fàtte leen ci kaso bi ñu xool sax seeni dossier état bi na gëstu juwaat xoolaat ñi nga xamante ni def nañ fa yenn at yi ñu dimbale leen jénne leen ñu delluwaat seen njaboot te yàlla tax képp koo xam ne contrôlé na ñu ne def na fa 10 ans rek 10 ans donc ko def na ko fa wala 5 ans yu mat état bi war naa ko mun a def te yàlla rek tax jénn ko mu dellu ci ay njabootam def ko te yàlla dong tax nag laa bu mu ko topp ci dara ndax fii muy muy ku mën a doon ci àdduna nag képp ku ci yàlla suñu borom bi topp ci say mbir dong laa benn fan benn fan bu la ko baalu doo doo fekkee suba kon nañu dimbalante ngir yàlla te yàlla rek tax ñu suturaalante état bi gestu ñu nekk ci prison yi prison yi metti na prison yi métti na te gaa yi fay dund lu metti nag buñ leen ko waxee buñ leen ko waxul barki Seydina Muhammad dañ fay dund lu métti des fois nit dund fa loo xam ne day jéem sax ñëkk xam nga ñëkk mooy waral sax muy def lu mu warul def. parce que nga tëj nit ki ba mu fàtte viam ba am ñoo xam ne dañu nekk ci kaso ba seen i waajur jënd àdduna seen ginnaaw ci loo xam ne ci ay tuuma ak ay ñàkk fayda ma d'accord naa ñi nga xam ne dañoo rey nit franc grand délit ñooñu lu mu dee dee mën nañ leen a tëj 5 yu mat sëkk juróomi at laa juróomi at décret boobu dañ ko war a fexe sëñ bi ñu àtte leen àttab ray sax kon moo gën yenn yi àtte nit ki àttab ray sax moo gën parce que ci lisla ci dëkkub diine lañ nekk ku rey nit ñu rey la sax mu noppalu bu ñu ko defee te kenn dootu rey kenn mais xoolal nga nga jël buñ ko defoon moo gën a yomb sax lii ñu def nii ku rey ñu rey la buñ ko doon def moo gën a yomb li ñu def nii jël nit tëj ko ngir gi dund ci kaso mu nekk fa am na ñoo xam ne est xam nga ne tëj ngi leen tëj mooy rey seen yow xuma la ñu tëj la waaye am na ñoo xam ne seen seen doom bu feebaree rek ñoom mun nañ ci tiit ba dee mën nañ ci ko souffrir mën nañ ko xalaat ba dee rawatina nga dem ñu jël sa doom yóbbu ko tribunal di ko atte ñu ne tëj nañ ko ngir gi dund mu dugg sa nopp wala tëj nañ ko 10 ans mu dugg sa nopp am na ñu ci ñàkk seen bakkan. kon daal foofu li ñuy wax mooy yàlla nañu yàlla dimbali musal ñu sàmm ñu te aar ñu ah te teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim parce que itam ay jaam lañu te jaam moom moomul boppam. ndogal ci jaam la ko yàlla di awale ci la koy teg kon ndogal yooyu nga xam ne ñun dañoo dëkk ak moom ñu ngi ñaan yàlla rek mu musal ñu ñoom ña fa nekk itam yàlla leen yàlla dimbali génn leen ba bu ñu defati lu leen fa yóbbu loolu lañ leen di ñaanal ab nattu la waaye waaye bu keroog li nga wax rek ñay atteeg ña yore ndogal ya ñooy xoolaat rek mbir ya parce que kaso moom ku ne xam na ne baaxul wala boog gënul neexul te it yéen kenn du ko yéene kenn ndax it lu doy doy waar la mais nag seste boobu ngeen def nga ànd ak góor a suug yëkkati sa alal woo ay neen yëkkati seen alal loolu rek wane na ne que yéen tamit yéen a ngi jaamu yàlla ci li nga xam ne nii moom la leen yàlla jox mu seen ñaq saa kontaan bu baax a baax ci li nga wax parce que wax ji am na solo trop. ñi nga xam ne ñoom la yàlla may as tuut ñu gestu juwaat ñi ne ci hôpital yi ak ñi ne ci prison yi rek ñu jaamu foofu yàlla man loolu rek laa waaw ñu jaamu fa yàlla nañ gestu ju ñooñu te jaamu fa yàlla parce que am na loo xam ne am na foo koy dugal fay suñ boroom ngay am direct hôpital wala kaso heure boo fa yóbboo sa alal yóbbul nga ko say mbokk yóbbul nga ko sa doom yóbbul nga ko say jarbaat ndax hôpital boo dem amaana koo mën a gis ci àdduna am na mbokk mu tëdd hôpital wala mbokk mu tëdd kaso kon tey jii bu ñu jëlee bëggee def lu baax danañ ko def fii ku bëgg def lu baax def ko ku bëgg a def lu bon def ko kon yàlla ñu yàlla musal ci ay ñaawteef yàlla xéttal ñu ci lu baax yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar te nangul ñu koor te suñu kilifa diine yi yàlla bàyyi leen fi réew mi itam yàlla saxal fi jàmm rek nag yàlla saxal fi jàmm kese te jàmm rek a fi am barki sëriñ Saaliw ndax réew mi li ñu am la benn réew amut réew mi sëñ Touba tëdd moom alaaji Malick tëdd fa Baye Laay tëdd fa bàyyi Niass tëdd fa Cheikh Omar Fouti Tall tëdd fa gis nga dama lay wax benn affaire ku ko bëgg a taalit yaay tàkk rek jàmm rek mooy am ci suñu réew mi tey ak ëllëg nag yàlla na ko yàlla defal barki Serigne suñu xol sedd na trop wax dëgg yàlla santaat nañ bu baax a baax Serigne Saliou lii nag kii la rek dañoo dañoo am lu ñu doon wane rek waaye am na lu ñuy waaj loo xamante nii kooku bis la boo xam ne cant la ñuy def ndax kat cant gi mooy lépp fas yéene nañoo cant Serigne Saliou bu baax a baax mm-hmm. delloo njukkal waa parcelle gépp ndax nag mm-hmm. dafa am lu ñu ma lebal waaw parcelle am na solo yàlla ko fekkee jërëjëf